waa Sénégal asalaamualeykum mbokki Tiwaawan ñu ngi am mbégte tey jàkkaarloo ak waa Sénégal di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni moo jëm ci élection yi nga xam moom lañ génn di élection présidentielle yu 24 février yi passé man maa ngi tudd Seydi Ababacar Gaye maay coordonnateur comité électoral communal bu Tiwaawan donc ñu daje tey fas ne waxtaanee li nga xam ni mooy résultat officiel yi nga xam ni démb conseil constitutionnel proclamé na ko mu proclamé ko tombeek wax dëgg yàlla le président Macky Sall mi nga xam ni moom moo nekkoon sunu candidat yàlla sunu borom def mu am 58 virgule 26 pour cent yu suffrage yu sénégalais yi mu nekk score boo xam ni noonu lañ ko doon ñaanee score bu honorable la mais aussi je pense que c'est une victoire éclatante ni ñu ko mën a waxee ñu am mbégte di ko féliciter d'abord parce que je pense que ni campagne bi ku ci nekk investir nga ci mais le président Macky Sall ni mu ci investiroo moom personnellement je pense que dépassé na kenn ku ci nekk investissement boo xam def nga ko ci parce que en 21 jours il a fait le tour du Sénégal def département yëpp def dëkk yu mag yëpp def dikku kilifa yëpp mener campagne boo xam ni c'est une campagne digne de ñuy félicité encore une fois ñi nga xam ni ñoo ak ñoom ñoo seqoon liggéey bi commencé ko ci ñi nga xam ni ay parti la yi nga xam ñoo composé la grande majorité présidentielle commencé ko ci Benno Bokk Yaakaar ànd ci liggéey bi ak sunu mag sunu xarit l'honorable député Cheikh Tidiane Diouf mi nga xam ni moo yor mouvement CTD construire Tivaouane durablement liggéey ci liggéey bu am solo aussi di félicité bu baax aussi Pape Thioubou ak mouvement bi nga xam moom la di ànd liggéeyal sa réew di ci profiter di féliciter encore une fois parti yi nga xam ñoo composé woon coalition bi nga xam moom lañ defoon mën naa cee lim UCS bu Abdoulaye balde mën naa cee lim yeesal bu Modou Diagne Fada mën cee lim alsaar bi nga xam ni mooy bu Mouhamadou Racine Sy mën cee lim mouvement yu bari yi nga xam ni vraiment ñoom ñoo ci àndoon liggéey bi mais aussi mën cee lim parti politique bi nga xam ni mooy CPGE bi nga xam ni mooy bu Demba Diop si mën cee lim aussi mouvement gëm sa bopp mën cee lim modèle bi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñëpp danoo illustré wu bu baax a baax a baax wane seen kémtalaay kàttan ci campagne électorale bi nga xam ni moom lañ jógee ci biir commune Tivaouane mais aussi mention spéciale à la présidente du conseil départemental de Tivaouane madame Seynabou Gaye Touré mais aussi mention spéciale au ministre Abdou Ndéné Sall coordonnateur départemental du comité électoral mais coordonnateur départemental bu APR suñ ko beralee cant ci sunu tur ñoom ñaar parce que ñoom ñoo nekkoon président d'honneur comité électoral bi nga xam ni moom lañu jiite woon il n'a ménagé aucun effort je dis bien aucun effort pour président Macky Sall am ndam ci élection yi ñu jóge ndax it damay taxaw ci moom gannaaw liggéey bi nga xam def nañ ko ci commune bi sur les soixante douze quartiers on a fait les soixante neuf centres de vote yu mag yëpp. def nañ fa ay meeting def fa ay rassemblement on a fait des proximités dans toutes les maisons de la commune de Tivaouane maintenant s'y ajoute au-delà de la commune de Tivaouane yeneen 17 collectivités territoriales yi nga xam ñoo composé département de Tivaouane fu ci nekk teg na fa tànkam li mu def ci ay sorti daanaka mat na juróom fukki sorti yoo xam ni moom la def ak dëkk maanaam mouvement wala activité yoo xam ne def nañ ko dans le département en quatre jours je pense que ni loolu c'est un travail de titan boo xam ni on naa l'honneur ànd ceeg moom mu diriger ko vraiment mettre nit ñi aussi dans de très bonnes condition parce que ku nekk cër bi nga xam ni am nga ko ci yëfi jox na la ko ba mu mat sëkk jiital lu nu en tant que coordinateur du nu faxastal donc bu lu mel nii amee le président la République def démb point de presse woote dialogue ñun dañuy inscrire ci logique boobu jàmm la ñuy woote. salaam la woote dialogue la ñuy woote. donc wax dëgg yàlla je pense que ni point de presse bi sax loolu taxu koo jóg te ay la yéwén loolu amuñu woon sax yéene yi di ci dellusi si parce que jàpp nañ ni fa coow lu jugee muy en locurance le maire Diagne si Mbengue ëppal na boppam 3 millions ndax it ñun ñi ñëpp ku ci amoon lu place bi mu am. doo taxaw di coow 3 millions te di nga ci investir lu ëpp loolu mais mbir mi entre mu très clair dafa am ñaari comité électoral yoo xam dafa am Tivaouane en réalité yoo xam ne jàpp nañ ni le président de la République Macky Sall moo ko validé parce que ni mu ko validé bu yëkkatee xaalis mu toll ci fukki millions ak ñaar joxe ko pour commune Tivaouane bi mu dikkee xam ni jafe-jafe am na jéem na ko réconcilier xam ni les dés sont déjà jetés mu gis ni aussi. bu nu amee ay comité pluriel day gën a yombal liggéey bi parce que bu kii awee fii kii aw fii wala liggéey bi ku nekk def ci sa wàll da koy gën a yombal mu valider ñaari comité électoral yi bi bi mu leen joxee loolu ne ñoom nañ ko garder ñun dinañu jox 12 millions ñu tolloo ak ñoom ci ginnaaw gi mu wàññee ko yëkkati 6 jox ko Diop si ne ko léegi nañu commencé dinañu motali 6 millions ah bi ministre demee Dakar demul Dakar pour jëli xaalis commune Tivaouane encore une fois. dafa demoon Dakar pour jëli xaalisu département bi comme ni ñu ko koy defee et je pense que ni du caa du amul amul sens ngay jël xaalisu département commune bu nekk ñu woo maire ba ne ko diw mu ngi jël si ndax ñu jox ko ko je pense que ça ne s'est jamais passé comme ça ni muy demee mooy dañuy yëkkati xaalis département jox ko buñ ko ko joxee aussi bu ñëwee da koy jox trésorier comité électoral départemental en l'occurrence docteur Dieng bi nga xam ne depuis 2012 mooy nekk comité électoral départemental trésorier biñ ko ko joxee aussi def ci décharge bind ci au représentant de Diop Sy man maay représentant Diop Sy maay président comité électoral bi maa ko déchargé 3 millions yi donc bu ñu waree jox douze jox ñu 6 joxaat ñu 3 donc desal nañu 3 millions parce que 9 millions lañ jot Abdou nee na ci mbaaxam génn ci poosam yëkkati yeneen 3 millions dolli ko ci parce que dafa jàpp ne ñun waruñoo topp président xaalis boo xam ni wax na ko te jëfu ko te aussi njaboot noonu lay doxee. kilifa mën naa wax wàcc mais njaboot moo koy saxal moo koy dëgg donc je pense que wax dëgg yàlla ñun ñi fi toog ñëpp dañuy am saxu genu di wax ci xaalis parce que jàpp nañ ni responsabilité yi ñu koy wax am bu ko ñi toogoon fii amoon il vont même financer la campagne départementale waxumal di ko am ko financer campagne donc vraiment nit ñi gisee ko noonu xam ni fii lu ñu fiy amu fi les gens se sont investis làmb ci seen poos ñi amul doole sax làmb nañ def seen kéemtalaay kàttan joxe seen participation parce que participation bi jiitu mooy en 21 jour activité parallèle boo daan am doo ci amul tuut nga bàyyi ko investissement mënta weesu loolu bi ci des nit ñi joxe nañ seen doole joxe nañ seen xalaat joxe nañ seen xam-xam bravé nañ poussière bi bravé nañ tàngaay bi def nañ lu nekk ngir fal Macky Sall je pense que fi mu toll nii l'heure est à la mobilisation leur est au travail non meeting départemental bi aussi wax dëgg yàlla dégg na ñu ne président de la république joxe na dix million pour organisation meeting bi ñu dégg ñu ni ay miru ñu ngi teg na ci cinq millions ñu dégg ñu ni Serigne Boub teg na ci cinq millions muy vingt millions ñu ni te territoriales yi dix huit collectivités benn bu nekk di nga jot cinq cent mille loolu di neuf millions ñun joxuñu ñu xëy na considéré wuñu comme comme comme comité jàppewul leen ko aussi mais teewul def na mobilisation honorable ñun fi ñu ko doon xaar sax ay la yéwén mooy 20 millions yooyu comme bi ñu joxee colpitali koy kenn ku nekk bi ñu la joxee 500000 9 millions la donc en principe war na des 11 millions pour man yoo xam ne moom lañ gënoon a war a mën a leeral que wax dëgg yàlla di acharné wul ci 3 millions yoo xam ni wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ñun suñ comité électoral rien que le financement des comités électoraux de zone rek ëpp na 500 5 vraiment li nu am doyul sax bay des donc euh, loolu daal moom laa bëggoon a apporter ci loolu pour leeral aussi ne comi euh, meeting bi nga xam moom la président doon def ñun associé wu ngi si nii de près nii de loin joxuñu ñu support joxuñu ñu moyen ko defee mais je pense que ni suñu participation a été une participation très déterminante par rapport ak bon suñu yi mooy d'abord di ko rafetlu parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar bu nu demee bay def dialogue islamo-chrétien mooy Sénégal gëm nañu ne même ñi nga xam ni bokkuñu diine sax war nañoo mën a ànd war nañoo mën a doon benn war nañoo mën a communiquer donc bu nu falee le président Macky Sall moom mu comprendre que il est le président de tous les parce que ci slogan am da bind un Sénégal pour tous un Sénégal pour tous ñëpp yëkkati seen i kaddu parce que ku nu fal à plus de cinquante huit pour cent je pense que ni sénégalais ànd nañu ak yow parce que deux millions et quelques de voix la am boo boolee voix yi ñi si def ñëpp am. moom dina leen rawee plus de huit cent mille voix cela veut dire que ni sénégalais ànd nañu ak moom sénégalais fal li ñuy xaar ci moom nag en tant que président de la mooy mu tàllal loxo ñëpp toutes les forces vives mu woo leen ànd ak ñoom ci liggéey bi et je pense que ni loolu mooy li nga xam ni moom la lancé ñun dañ koy rafetlu à notre niveau aussi muy Tivaouane gi nga xam ni moom la ñu féete loxo boobu ñu tàllal ñun ñu ngi koy tàllal ñi nga xam ni aussi ñoom lañ téer séqal terrain politique bi même ñi nga xam ne opposition la nekk jàkkaarloo woon nañ élection passée na léegi maintenant l'heure est au travail l'heure est de à la bonne gestion de notre cité et je pense que ni loolu képp koo xam ni doomu Tivaouane nga rek loolu sa itte la donc vraiment ñu profité aussi ci occasion bi parce que comme dañoo laaj ci dialogue bi nga xam ne lancé na ko ñu nit ñu am lu ñu yóbbante président de la République mooy commune Tivaouane dafa am njàmbat loo xam dañ ko fee yàgg a jàmbat mooy ñun bi nu fàttalikoo ba tey te ñu ngi bëgg am ay at fàttalikuwun fu commune Tivaouane am ministère digne de nom je pense que ni jot na wax dëgg yàlla ñu sunu frère Abdou Ndéné mi nga xam moom la àndaloon di liggéey wax dëgg yàlla mu rehaussé ko rang bu tolloo ak niveau bi nga xam ne aussi c'est un ingénieur c'est un ingénieur boo xam ni wax dëgg yàlla capable na wax dëgg yàlla rien que pour la commune de mu nekk cëru commune Tivaouane sax mu yëkkati loolu jox ko d'autant plus que vraiment yàlla dogal na mu nekk APR depuis 2012 di ci investir def ci lu mu xam lu mu man vraiment jaadu na aussi wax dëgg yàlla ñu ñu cërale ko loolu muy nekk aussi cëru Tivaouane donc je pense que loolu aussi nekk na appel boo xam ni wax dëgg yàlla dinañ ko yóbbante son excellence le président de la République je m'appelle Seydi Ababacar Gaye je suis le coordinateur du comité électoral communal de Tivaouane Euh, il nous plaît vraiment de faire ce point de presse pour partager quelques préoccupations à la population sénégalaise, mais plus particulièrement à la population de la commune de Tiawan. Il va de soi que pareil moment sera gravé inéluctablement dans le marbre de notre conscience collective, d'autant qu'il est davantage ennobli par la présence de partis et de mouvements qui se sont battus pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Je veux nommer le mouvement Construit Tuan durablement avec l'honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, le mouvement And Liguel Sereo de monsieur Papchoubou, du parti Modèle, de l'UCS, du parti ISL de Modou Diagne Fada mais aussi des mouvements SMS Fekke Muccul Alsar donc qui se sont battus CP mais sans oublier aussi la CPJE de l'honorable député Diop Sy qui lui aussi s'est investi entièrement pour la réélection du président Macky Sall au premier tour je pense que nous avons nous avons convoqué ce point de presse juste pour nous inscrire sur cette logique de dialogue que le président Macky Sall a enclenché hier dans sa communication. Nous le saluons. Nous saluons sa clairvoyance. Nous saluons aussi l'esprit qu'il a animé. Parce qu'en premier, en dehors de saluer peut-être les 58% qui l'ont élu, il a fait appel aux 42 pour cent qui n'ont pas voté pour lui et il a promis véritablement de voir les techniques qu'il va mettre en place pour qu'ils puissent véritablement voir leur place euh, dans la démarche ou bien dans la marche du vers l'émergence. Maintenant, par rapport à cet appel, nous tenons véritablement à féliciter, mais aussi à remercier nos présidents d'honneur. Je veux nommer la présidente du conseil départemental, Mme Sénébou Touré, mais aussi monsieur le ministre Abdoundène Sall, qui n'a ménagé aucun effort, je dis bien aucun effort, pour la réélection de son Excellence le Président Macky Sall. Il s'est investi. Il a mis tous les moyens qu'il faut rien que pour la campagne pour le département il avait mis 5 millions sur la table pour les 4 jours de tournée au-delà de cette somme il nous a mis dans de bonnes conditions pour qu'on puisse mener à bien la campagne électorale les gens se sont investis les gens ont bravé la chaleur les gens ont bravé la, la poussière rien que pour élire le président Macky Sall le comité électoral nous le remercions sans, sans nous, nous remercions le comité électoral, mais nous remercions aussi les femmes. Ils se sont véritablement investis pour la bonne marche de cette campagne électorale. Mais aussi, permettez-nous de remercier les foyers religieux. Si nous disons foyers religieux, nous pensons en premier ressort à la famille de Seydil Hadji Malik. Je pense que tout le monde a vu véritablement euh, l'engagement de Tuawan dans cette campagne électorale, rien que pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Maintenant, nous magnifions véritablement cet entrain qu'il a pris d'appeler au dialogue. Dans un pays comme le Sénégal, si nous parlons de dialogue islamo-chrétien, c'est un dialogue véritablement qu'on appelle pour faire un trait d'union entre les religions. Très honnêtement parlé, je ne voudrais pas parler d'argent, ni revenir sur cette somme. Mais comme le maire est monté au créneau pour décrier ou bien dire qu'on a détourné trois millions qui étaient destinés à leur comité électoral, je pense qu'il n'a pas compris. Parce qu'en réalité, à Tuan, il y avait deux comités électoraux. validé par son excellence le président de la République lors de, sa, de, de, de, son passage à Tuawan. Il a essayé de jouer la carte de la médiation, ça n'a pas abouti. Maintenant, il nous a dit de conserver les deux comités électoraux. Maintenant, quand on a conservé les deux comités électoraux, on a constaté qu'il avait donné 12 millions au comité électoral piloté par Djantimeng. Il nous a dit de nous donner, nous aussi, 12 millions. Il nous a remis millions pour en, après peut-être compléter les autres 6 millions. Il nous a envoyé 3 millions. Donc on a reçu 9 millions. Mais les 3 millions étaient destinés à compléter les 12 millions que le président de la République devait remettre à notre comité électoral. Maintenant, il, c'est le, le ministre Abdoundéne lui-même qui a dit que le président de la République Quand il a dit de nous donner 12 millions et qu'il nous a donné 9 millions, il a pris de sa propre poche 3 millions véritablement pour compléter les 9 millions que le la République nous a donné. Donc ces 3 millions s'inscrivent dans une logique de compléter les 12 millions que le président de la République lui-même avait dit qu'il allait nous octroyer. Donc je pense que parler peut-être de 3 millions de détournement, je pense que par rapport à quelqu'un qui un niveau dans ce pays un directeur général, je pense que c'est très déplorable. Vraiment, nous, nous, nous, nous sentons très déçus hein, parce qu'on n'attendait pas à ce niveau aussi bas. bon, si aussi les communes ont reçu de l'argent, nous, notre comité électoral n'avait pas reçu de l'argent. Ce qu'on a entendu, il paraît que le président de la République avait donné 10 millions pour l'organisation du meeting qu'il devrait tenir ici. Entre-temps, Aïmirou a mis sur la table 5 millions. Serigne Mboup a mis sur la table lui aussi 5 millions, ce qui nous donne une somme de 20 millions. Les 18 collectivités territoriales ont reçu, il paraît, chacun 500 000 francs, ce qui donne un montant de 9 millions. Si on l'extrait des 20 millions, il va rester 11 millions que véritablement, on, on est, on est resté sur notre fin pour qu'on nous élucide véritablement ces 11 millions qui étaient destinés à euh, l'organisation du meeting que le président de la République devrait tenir au Tuan lors la campagne électorale. Bon, je pense que Tuan a joué une, une, une, part très importante par rapport à la victoire président Macky Sall. Parce que lors des législatives, Tuan avait 47%. Donc, euh, lors de cette présidentielle, on se retrouve avec un score, un, un, un taux de 56%, voire 57%. Je pense que Tuan aussi a des cadres n'est-ce pas regorge de cadre de très haut niveau mais on se rend compte que depuis très longtemps Tivaouane n'a jamais eu un ministère plein nous ne voulons plus véritablement d'un ministère délégué nous voulons un ministère plein qui pourra véritablement euh, prendre en charge certaines préoccupations de notre très chère ville et je pense nous pensons nous tous à notre camarade notre frère monsieur Abdou Ndéné véritablement qui, au-delà de sa légitimité, de sa, de sa légitimité politique, a une légitimité historique. Parce que depuis 2012, il est à la paire, il se bat, il n'a jamais ménagé, il n'a jamais ménagé aucun véritablement pour que le président de la République réussisse sa magistère, mais aussi réussisse dans le département de Tuan, mais aussi réussisse sa gouvernance au niveau du Sénégal.